awayakul, awayakul, awayakul. jal mama jal may mama jaag kuraani jara lay ma demoon dërë damay sagal état pur dans toi même tu sais kon bok vieux et eh, si waatal fii bu ko defé ñu tok ñu waxtané ko na xam ngeen né eh, ni lañ koy defé sa su ne waaye di leen fàttali sen camp de vacances yi nga xamante eh, Summer Beach Village mom moko organise organisé mu di waa Escaf Events groupe Escaf di leen ko amal tous les samedis et dimanches fofu ci BCEAO ci plage Kepar gi donc yéen ñi nga xamante ya yaa ñuy sétane mu ngeen fa yobu séni dom doom seen i xarit ngir ngeen passer d'excellents moments amna sécurité waaye waaye am na tamit li nga xamante ne mooy ay table de ping pong ay scrabble euh, li nga xamante ne mooy ay concert ah des jeux concours yëpp dañ ko fay organiser ah donc ñu ci ànd ak équipe bu dynamique donc am na fa restauration dina am crêperie euh, dina am lépp li nga xamante ne rek euh, boo leen fa àndee ak seen njaboot ah doo leen wéet benn yoon donc ñi nga xamante ne bëgg nañu nekk ay partenaires bëgg am ay visibilité ci camp boobu nga xamante ne camp de vacances la Summer Beach village ah donc muy am foofu ca fi nga xamante ne moom mooy centre centre aéré BCEAO plage Kepargui. Euh, donc ça sonne. ne euh, le groupe Escaf donc euh, Escaf Events ñoom ñoo donc les na lépp trampoline quatre points karaoké baby foot billard pour enfants challenge chaise mémoire jeu de carrosse avec table de ping pong Scrabble donc nous avons nous fa donc nous avons xale lañ koy lañ koy tous les week-ends donc bëgg ngeen ànd ak en toute sécurité ak que euh, toute transparence foofu la euh, tous les week-ends samedi ak dimanche ngeen dem foofu bànneexu ndax dafa am solo bu baax a baax euh, donc gis ngeen Mohamed ak ñom Seydina ñom Chic Abi ñom Nanette ñom ñep ñu ngi foofu ngir gunge len ak waa PNG pour assurer l'animation Viaña nak moy ganu bés bi muy ndanan ko li fadrin lam fi def machallah buñ koy lim duñ fi jóge ndax gis nañ ne xew yu rëy yëpp ci réew mi ya koy ya koy ya koy animer ba mu neex waye vieux nit ñi ci bongo lañ la xamé won bongo rek mm. waye nak li mom xana exclusivité la. non non dañuy gëna yok sante yalla rek. lu la liggéey mayul ñak fayda dal koy xagn dañuy doomu géwél war nañu mën tëgg wara mëna tass wara mëna war a mën a fecc war a mën gal kenn du nàmp meew gall bineegar déedéet li nga namp rek ngay tàqamti ko nga ne kenn du nàmp meew gall bineegar ndeysaan waaw waaw gaynde du jur mus li sama doomu ndey di wax ousain gaynde lu muy jur gaynde gaynde lay jur. Ah. gaynde du jur muus mukk. waaw euh, di kontaan trop ci dalal bi ngeen ma dal. Mm-hmm. li ma waxoon rek lii dafa raar Sénégal. Mm-hmm. gaa ñu ngi koy def ci yeneen télé mais fi nga ko innee la ko Sénégal soxlaa ndax tey buñ ñu defee sport. Mm-hmm. Euh, sunu grand frère Sala Bigué wax voilà wax. sama jigéen ñi nga xam ne ku si teesu da ngaa ñuul te ñëpp a rafet ele est belle elle est gentille elle donne de l'argent saa gënoon gërëfaas ba mu njàmpe eh? solut weer. weeru kolobaan <laughs> ministre de la Lonette laa ko tuddee ndax li may wax jigéen day gaaw a ree ndax jaal day bette li nga war a ree boo ko reetaanu boo jaale <laughs> dootoo reetaan tey dama kon non da ngay ñëpp te ku dem bay ree jigéen bu rafetee di dem bay ree di ñëpp euh, na si il faut sourire di kontaan tamit dama gën a kontaan di kontaan suma euh, frères yi mm-hmm. ndax gis nga asan ku sof la. non sama xarit la ak soof. non sa xarit la sa way la asan Clavis. asan ma ngi wa lol la wa gis nga may mako wa mo ngi non senegal ak sof waji ji yooyu gis nga asan day def yi ni da koy def sa yenen musiciens yi. Mm, mbay di contane suma rak ngouda ndjay mm, ki tok ni jarbaatu ana nga jugal Salam jallo ngouda jugal ñu gis la dem ji. très bien jarbaatu Salam jallo wa wa mo ngi non nday mari moy yaayam. gis nga mm. batteur bele batteur bi. rakku salaam Diallo kee mooy Mamadou Lamine Fall bi salaam di wax. <laughs> gis nga kii nii toog Pape Faye. Pape Faye Pape dana ma vie du ma tëgg moom su may tëgg jàkkaarloo lu bari sabar lay tëgg ndax su ma waaw su ma yow gis nga fu may jëm ci àdduna bi mm. fu may jëm tama la may tëggal mais tey dana ma vie comme que da ngay woo euh, mbay mm-hmm. mu ñëw ma tëgg sabar comme que moo miin sa musique yëpp mu tëgg sabar mm-hmm. dirigé def loolu Ousseyn Mbaye mii Ousseyn Mbaye kenn du wax li ma mel kii kenn du wax li ma mel Ouzin jógal hmm. ñoo bokk lu ñuy def tey li ma defal dama ci kontaan li tax ma kontaan surprise dara dàq ko ñoo bokk lu ñuy def day bongo Ouzin hmm. Mbaye bu Lamine Samba ku ne xam na ko hmm. mais tey dafa def dani ma vieux da ngay sama doomu nday da ngay sama xarit te ñun ñëpp ñoo far ñoo bokk nday baay hmm. ki lay tëg bët ak ki lay xoolee du def lii muy def nii hmm. sama nawle la ñu invité ma mu bàyyi léppam bàyyi soxnaam ni ko toogal vie ñaa la ñëw damay dem jàppale ko bu mu neex hmm. dama kontaan Ouzin Mbaye amu lu ma koy wax mbay tama mais yaayam mooy aw faatu géwél papam mën a tëgg tama lool Nicolas bàyyi sama xarit yi ngay xas as as kii ah, kii fu ma jëm ci xew yi moo may tëggal bongo <laughs> as mii toog as mi sama rakk la sama xarit Sidi mbay moom kenn du la présenté ndax nee nañ euh, ñi fi toog ñëpp Sidi Mbaye mu fàttali mais foofu laa bëgg nga yem tuuti Sidi Mbaye damaa bëgg ñu waxtaanee ko nga doxantoo ko rek loolu nga xamante ne moom waaw waaw koy wàccee mu diig ca suuf bu féetee suuf ni ko ajaratu sodo bu so sekk daan waxee na diig

très bien donc Rougui, avec la rubrique je consomme local Ngane ne dal »,« daal dal »,« nga fas yéene ñamal Nicolas tey nag eh, dañuy am mbégte di indeeti beneen produit local. Mm. ñu dugg rek ci màdd parce que ku ne xam na ne eh, période bi la ñu ngi ci période madd avant nawet bi la madd di dugg si daal di tuuru. Mm. jóge fi nga xamante ne bëri Sénégal lool nag surtout zone Casamance bi waaye tamit am na fi nga xam ne mooy Mali xam naa waa régie bu ñu munee may rek eh, garab bi ñu wan ñu. garab dinañ la ko wan muy mm. mel. mais aussi doom bi ñëpp xam nañu madd ah ñëpp xam nañu madd mais surtout vertu yi la ñuy wax. parce que dañuy faral di jël li nga xam ne mooy ay comprimé mhm. di ci soxla vitamine yoo xam ne moom la ñuy soxla ci suñu yaram mhm. voilà garabu màdd baa ngi nii ñëpp mhm. gis nañ ni muy mel garab buy law la te guddul nekkul garab bu njool aussi mais li liñ ciy mën a wax rek mooy doom bi ci boppam euh, moo ñu soxal vertu yi nga xamante ne moo ci nekk ndax màdd dañuy faral di euh, di ko lekk nii mais xamuñu lan la ñuy apporter neexaay bi la ñuy topp ak safaay bi ak yooyu parce que doom bi nañ ko lekk nii am na ñoo xam dañ koy màcc nii am ñoo xam ne dañ koy euh, baxal confit ko def ci li nga xamné moy sucre def ci xorom def ci kaani ak yooyu non mm. kiko mais lim ñi apporter mo ci am solo muy lan muy vitamine C bi muy lan muy vitamine B1 muy lan muy vitamine B2 Nicolas vitamine yooyu nek vitamine yo xamné dañ koy faral di jël ci ay comprimé wala diko faral di jël ci ay yenen euh, produit alors que amna ci suñu fruits locaux yi nga xamantene mu ngi fi ñu di koy sans le savoir xalé yi diko ko diko di dañ ko wara gëna consommer gën ko valoriser mm. ba nga xamné période euh, bi muy am ñu mën ko conserver def ko de telle sorte que dinañ ko mën a am à tout moment mm-hmm. toute saison euh, à toute saison ñu mën a am madd mën ko consommer mën ko aussi euh, valoriser ba nga xam ne vertu yi nga xam ne moom lañ ci soxla muy vitamines yeeg yooyu ñu mën ko am euh, ci ci ci conservation boobu sans colorant sans additif sans sans rien du tout parce que léegi ñi nga xam ne ñooy exactement ñi nga xam ne ñooy <laughs> promoteurs yi nekk bu baax ci li nga xam ne mooy production locale bi ñi ngi faral di ko jël di ko def ci ay ay pots. Mm. diko diko diko consommer fi hein au Sénégal mais aussi diko guenné à à l'extérieur diko commercialiser muy dem fu nek ci aduna bi parce que xam nga rek Afrique dafa riche rawatina suñu dëkk bi di Sénégal donc ñu leen di gëna encourager di leen ñaax ñom association yi ñoom groupement yi ñom particuliers yi nga xamante ñu ngi yëngu bu baax ci production locale bi di euh, def transformation de fruits et légumes surtout fruits yi nga xamné am nañ ko ñu leen ci ñaax bu baaxa baax ñu gën ko conserver conservation consommation bi nak nek bu période mad jeexee ñu continuer diko mëna gis diko mëna am ngir diko mëna consommer day don lu baax a baax a euh, confit bi période bi moom tuuru na ci marché bi ñëpp xam nañu neexaay bi ñoom vraiment ñoom Valérie xam naa ne moom ñu ngi ciy dégusté bu baax a baax mais bëgg nañ bu période bi passé ñu mën ko continuer ndax vitamines yi ci nekk ni man damay wann madd man mun bu ma yàbbee madd waaw bu ma ko yàbbee dafa mel ni lekk ko mhm. ah donc loolu moo tax man aayuma trop ci madd tout à fait euh, man euh, li ma bëggoon laaj rek euh, Rougui mhm. parce que dañu gis ñun femmes enceintes yi fii ci Sénégal dañoo faral torop di bëgg ay lu demee ni ay Dakar ay limon madd mhm. fami forox yoyu mhm. te ñu xamni ni dafa am euh, acide mhm. dafa nek lo xamanteni ni boko boo ko à chaque fois da ngay gis ni da ngay amé remontée gastrique mu di la sonal trop donc est-ce que femme enceinte conseillé nañ ko bu baax mu di lekk li nga xamni ne moy mooy wa lepp lo xamné nak ne c'est acide femme enceinte bi dañ koy déconseiller bien que de kay bëgg ay limon ay daxaar ay euh, li nga xam ne mooy madd dañ koy bëgg ay tol voilà tol sax commencé na période bi donc dañ koy bëgg mais da ngay xam ne li ngay am envie lekk ko day tax sa xel di gën a tey day tax nga gën a am remontée gastrique mhm. yu saf yi daal buñ ko mënee wàññi parce que am na ñoo xam ne mënuñu ko éviter mhm. mënuñu ko éviter du leen def dara nag mhm. du leen def dara d'accord amul ay voilà amul effet secondaire du leen def dina soulager seen xel bu tey ak remontée gastrique dina ko soulager mais dis-toi que boo ci paree rek da ngay gën a amaat

paree léegi di baxal parce que xam nga buñ ko baxalee da ngay duggal sa ni rek li nga li nga ci soxla ba tax nga diko wan lolu genn nga mën ko yàbbi dama ay mais boko ci sama mbokk Valérie mu né <laughs> alors ma question bi mako bëggone laaj sank né nga ñu mad ci en basse Casamance foofu lay gën di sax mais la motax lég lé euh, duñ koy gis ci kër parce que damay dégg né mad dafa and ak danger c'est-à-dire que day attirer li nga xamné ne di serpent donc euh, est-ce que lolu tax na ba euh, mad dañ koy ragal sa jëmbat ci li nga xamné ne di kër familial yi waaw màdd nag nag c'est un arbre sauvage arbre boo xam ne la daanaka duñ ko jëmbat dafay saxal boppam booy seet ci àll bi la gën a bari. Mm-hmm. mais dina am ci kër yi dina am ci mbedd yi dina am ci yooyu yooyu. Mm-hmm. mais c'est un arbre sauvage. donc fu mu am bu fekkee ne yooyu noonu nga ciy daw mën nga ko tout rek nga dindi ko nga ko. Mm-hmm. kon dëgg la nekk day attiré li nga xam ne moo di. serpent loolu nag ñu bàyyi xam ne arbre sauvage mu am sauvage ñëw fi. <laughs> ma <laughs> ay sauvage nekk. ay sauvage dina donc man garab bi nii euh, dama màgg ak moom ci Sicap ah. Rue diis ci kër ga ñoom Penda Penda job ah donc mom seen kër dafa am ah, garab nga xamantene mom moy garab mais légui ni yaa ngi doon wax tol nga ne tol mom foko foko foko gëna soppé nga ne yow nga ne foko gëna tol non dafa len tol dafa xew manako tol nak honnêtement man maa ko soxla uh-huh. euh, ci ñeexu ciép yalla bu mu nekk ciép wéxu ah. weexu nawet am bëgg mu taw nopi non c'est vrai ah. non tol tol, tol, ko soxla tol, tu sais man damay géwél. dëgg la ñu lay géwél nag loolu laax. dëgg la dëgg la loolu laax. waaye madd bi moom. même madd bi sax am na ñoo xam ne comme ni ko Mbaye seen waxee dafa xam lu baax xam lu meex ndax dañ koy def ci maccaat. gis nga boo seppee ba pare. waaw say jën ak say ñoom seen. nga jël madd bi nga daal di koy def ci biir seppi boobu xam nga da ciy gajaf. fi lekk ngay seddale boo yekkee ba pare ba seddale léegi nag bu nit ñi lekkee ba pare. tu mets de l'eau dans la bouche. waaw yow mais mais rugi rugi de la dama dama gis parfois ñu def ay tubes yo xamné dañuy bind tubu màdd xam nga xewon na fi jigen ñi dépigmenté wu soppoon ko trop ma bëgg xam ndax dafa am aussi ay vertu yo xamné ni vertu cosmétique aussi voilà cosmétique bi bañ ci commencé di duggal màdd bi sax mën naa ne yàggul mais xam nga tout ce qui est acide mm. en général surtout sur le côté cosmétique mm. da fay am lo xamné dina dégrader wala dina euh, rocci comme niñ ko mëna waxé ci mm. olof en général diw yi nga xamante ne c'est à base de màdd diw éclaircissant yi ñu ci ëpp si si voilà donc yooyu noonu dalay rocc da ngay gis sax ñu bind ko ci. nga xam ne boo ko diwoowee dafay rocc ci sa yaram. xaw naa xaw naa lakk Sénégal diw. tibb màdd beeg tibb Dakar. exactement na leen. tibb exactement tibb Dakar bi. non non non seulement dafa fort. exactement dafa fort gars yi doon laataa ñuy comprendre. fekk ñuy diw parce bi la ñu comprendre. déjà xam nga Dakar. voilà mu ni déete waaye nga ni màdd. nga ni màdd jël ko tey acide bi exactement waxuma am na xam ne dañoo mujj dugub. dañoo bien léegi nag li nga xamante ne moom nga ñu tàmmal saa su et dégustation parce que ku ne xam ne euh, le temps nga ñuy defal dégustation ñu jàll ci euh, rubrique bi nga xamantene ne euh, yu ñëwé rek jox leen sen vitamine de l'âme celle qui adoucit les mœurs donc ñu dem ak rubrique musique ñu ànd avec Valérie c'est parti très bien Valérie nous démarrons euh, ce soir euh, avec euh, l'actualité bi nga xamante ne saa su nous euh, moom nga ñu tàmmal ci musique à la recherche de Abdou Guité Seck. Effectivement alors Abdou Guité Seck euh, mon artiste auteur compositeur mais aussi chef d'orchestre gagne. ñi mu Sénégal ñu woy yu neex musique yu neex ba taanaka mhm. sax bañ ko gisatulee ci scène musicale bi on s'est tous posé des questions donc mais laata loolu xanaa dañuy jéem ma def est ben historique tout ci Abdou Guité Seck Nous l'aimons, di xamal que moom espèce lañ ko a à l'âge de 13 ans il a été il a été plutôt élu voix d'or dans dans sa ville natale euh, qui est Saint-Louis donc euh, mom, en 96 mu vocal lead vocal ben groupe sénégalais euh, franco-sénégalais je dirais qui s'appelle Wok mm, donc Wok en fait contraction mot wolof la donc c'est un mélange de mal li nga rock mm. terme mm. donc grâce à la beauté de ces mélodies mu am ci ay messages profonds ak tamit xam c'est riche dans ses titres mhm. At euh, li nga xamné mom lañuy wowe présence scénique mom mhm. daf ko am bu baax a baax macha ba mhm. lol sax dafa tax sax mu ko ay porte yu bëri yu ci melni sax euh, ay participation ci ay événements artistiques de renommée internationale mais aussi dafa def ay collaboration ak ki nga xamné modi Nicolas Baymad bi ngay ci ko bam paré pare sama rubrique euh, donc <laughs> donc dafa def ay collaboration ku ci melni Phil Collins at Youssou Ndour ku ci melni tamit Carlos Santa Santana a tamit euh, le grand Isolo donc ñom ñep euh, muy ay euh, artiste yo xamné il a même eu à travailler voilà. avec Lamine Habib Faye. Habib Faye donc ñom ñep ñuy ay ay grandes icônes ci li nga xamné mom lañuy la world music mais suma ma fofu ñu leen di fàttali ne que nek tout ça lik sax ci groupe Wok donc Wok danaka sen and tasna depuis 2000 donc mom 2002 la jotta créer li nga xamné modi moo carrière solo donc créer tamit groupe.

donc mon année bi si top 2003 mu gagné John Adina. John Adina, nak mon ñëw toj au niveau national comme au niveau international donc John Adina, avec une qualité musicale exceptionnelle donc mon def li afro fusion mooy un mélange de tradition hmm. Nicolas wàcc moi moo di un ah, mélange de tradition ah. bah, vas-y <laughs> mélange de tradition ak li nga charmes musicaux internationaux donc l'on ñu koy afro musique mm. afro fusion donc euh, ba taxna nak ci bobule album modi di mu meilleur album le mieux vendu ici au Sénégal mm. <laughs> donc xamna naa dem dara cette année sa toute première vidéo dem te donc en 2004 il a été primé à la cérémonie des galas de Djembé d'or en Guinée donc, il euh, faut nous plaire, mais il faut qu'on s'assure euh, gala bi nga ne mo amone amoon Guinée donc tamit ci même année bobu mu tamit finaliste du prix RFI euh, en musique du monde au Mali donc euh, Bataille Modeste il a aussi été sélectionné pour représenter le Sénégal dans les Jeux de la francophonie en 2005 fallait Niger plus précisément la ville de Niamey donc euh, en 2005 mu def son tout premier album international mu son tout premier album international mu dippee De Cale donc gannaaw Kali Bob itam 2006 mu nek tamit premier album live mu dippee ko mom itam été show donc euh, Nicolas ganna huit albums solo yo xamné sénégalais yi dañ ko accueillir sans contestation moy mhm. talent bi nga xamné mom la andal. mais dans ce cas Abdou Guité yow foo fo nek nekk man ñu lu neex ba paré daw en tout cas li ma ci xam mu ko ci xam il va très bien il se porte très bien ah. euh, mu ngi woon France di fa liggéey ci album bi nga xamante mom la lay euh, est-ce que xam nga Abdou Guité Seck nit ëpp ko fan ci Sénégal dëgg la animé naa rajo animé naa ay spectacle mais boo gisee pour bi ñuy drainer derrière mhm. sama xel day dem ci ñoom Amina Guité ah mhm. ñi nga xamante ne Hélène Guité ñi nga xamante dañ dem ba dubbee ko seen i tur mbay seen du ñàkk mu am lenn duñ ko dolli ci juste wax euh, que ni 96 97 98 bi muy soog a ak groupe boobu noonu wokk euh, foofu la ma Abdou marqué ci sama ami fàttewuma la ba ma amulee doon defal mu nekk une variété ni amoon na ci keneen keroog sax ñu ngi indi fi waa ji mooy ki doon def piano bi la j'oublie son encore tubaab bi doon def piano bi Nicolas euh, te doon takk verre yi l'aveugle waay waay mu ngi nekkoon ci groupe bi ak une variété de musique boo xamante ne bi bu extraordinaire man xaw ma sax la moo taxoon ñu bàyyi loolu parce que demoon nañ fa ne Abdou Guité dafay def li nga xamante ne moom mooy carrière solo mais boobu moom wog boobu moom sama ami boobu moom beneen affaire la woon ah, surtout refrain bi waaw waaw Kéemaan voilà voilà voilà. mais nag mais nag moom dafa bokk ci famille boo xam ne dañu mën a woy bu baax bu fàtte ne ajal jam sek la saint mooy magam Abi jadi sek mag mu ko tuddee. dëgg la Jabu sek, Jabu Seck ak Alaaji Mbañik Seck mu jël soodu bu sa Seck ñoo day bay ah, ñoom famille lañu boo xam ñoom ay griot lañ ay gri ay griot lañ dañu don woy voilà hmm. parce que Abdou Jide maamam lañ ko tuddee loolu moo tax ñoom dañu bokk famille boo xam ni hmm. ay ndaanaan lañu même Léopold Sédar Senghor hmm. bu musaane am dem ci côté Gandiol nii ma jabu mu ak man ak yu jël ci jël ci ndar ñu accompagner dem bu ñu jël ku mel Adja Ndogoy Jëri Seck di nga bu ñu jaaree Louga jël cercle de la jeunesse bu Louga nag mu ànd ñoom ñu def benn caravane ci biir réew mi ma wax leen man su ma nekkul woon géwél xam nga lu may doon mbaam xoof mu mag ah. bu nawel jotee rek ma génn man géwél rek man damaa sant yàlla bi ma doon géwél su ma doon génn mbaam foofu bu mag laay doon bu nawel jotee rek 24 décembre ma génn ñu lekk ma. kàtteeg <laughs> ma amaate. koy rey lañ war a laaj. très bien très bien donc dañuy bah, waaw dañuy continuer ba tey ci euh, dynamisme euh, actualité musicale euh, yaa ngi doon waxtaan léegi ki nga xamante ne mooy Abdou Guité Seck. Abdou Guité Seck ku ne xam na ne daanaan ko li Fadril en tout cas loo ci mënti dégg rek mu ngi préparé ay affaires yu yu garaaw pour sénégalais yi ci ay fansam parce que ku ne xam na ne un peu partout dans le monde dafay représenter le Sénégal dignement ginnaaw ginnaaw Abdou Guité Seck bi waaw ginnaaw Abdou Guité dama len di fas jox li nga xamné modi calendrier événementiel li am fi ci Dakar donc ñu koy Dakar d'ailleurs il sera très chaud à partir du mois de septembre. d'accord su chaud nak mom concert hmm. donc MHD de la France il sera en concert ici à Dakar le 17 septembre suivi ensuite de bouba B20 le 22 octobre. donc ensuite euh, on va du côté du Togo dem seeti waa parce que ñom tam dañuy seet hmm. le 29 octobre et enfin Maître Gims le 24 décembre mais le

ay programme yu am solo ah, tay ni eh, ban jangane nga am ci sa parcours bi nga xamantene bi nga tàmbalee ak léegi ni waaw gëna yok sante yalla rek gëna yok sante yalla yàlla nah, lepp loy looy liggéey torox ci amna ku koy liggéey tedd ci mhm. ci kaw gëm-gëm ak am fulla mhm. am personnalité man chaque jour lool lay wax nit ñi dañ sama wax dafa dëgër sama wax neexul ndax eh, ni may waxee dedet am na nooy amee dignité am looy imposé am loo gëm. dañ lay jaawa rek ku ku rëy wala dara man ku ne xam ne ne man Baye Fall laa man ab taal bi Serigne Abdou Karim dong la mhm. te li may dund ni noonu laa mel su ma nekkee ci xew mën naa fecc ba sama tubay xotteeku bu xew paasee Vienna boo gisee day mel ni muuma mën naa taasu ba mbaam génn sama gémmiñ mais bu waaw si mais bu weesoo taasu amatu fa dama bëgg ñenn ñi nga xam ne si nii comme li may dund Ouzin Mbaye comme Galas mm. Ouzin mm. noonu lay dund dama dama ni bongokat yi ndax maa ngi ci tele di fa def émission ni leen ñun ñi nga xamante si ni ñun ñoo ci jiitu mm. bu dee da ngeen a bëgg lu baax dee leen ñu roy comme ci ka Galas ka Ouzin Mbaye del xaar allo ñaata mais foo jëm foo dégg xew gàddu sa yëf dem xam nga tey bu ñu woowee Ouzin wala ñu woo Vienna ma ni leen cent mille laay tëggee ndax man damay jël xew avant euh, euh, jour bi di jot hmm. boog may te nee naa leen da ngeen may teelaw bu dee ngénte la quatre jours avant laay jël avance bu dee takk la vingt jours laay jël avant bu bu passé bu jegee man ñi may woo ñëpp ñu ngi may seetaan hmm. xam nañu ku ma ci ba jour bi ma nekk benn xew ni nga di ma woo naa ma vie dafa am léegi lu ma bëgg léegi-léegi nga ñëw tëgg ma dama naan dama jël engagement ya na xamal ma tax hmm. loolu dalay yàqal dañ naan juste ndax ba pare nit ñi da lay fay xaalis ba pare pour nga tëggal leen ñu bëgg ambiance beeg taasu beeg waxtaan wi mhm. ak yun ni ñuy defee ndax gisoo léegi maa nga am na sa benn way boo xam ma ko wax ni ma bongo wax juñ suukar la mhm. nañ leen ko mbeeraay mu neex mhm. wax yombul ku bon mënu ku soxor ku bongo yeeg tama ñu kon loolu yëpp ay waxtaan mu ngi ciy jur kon nañ leen ko rafetal nañ leen rafetal di toog di xaar alors am personnalité gëm sen bop di sol lu set di sol lu rafet di xeeñ parfum la ah. kala loolu laa bëgg bongo kadi ak tasu kadi même bu bongo kadi ak tasu kadi ñen yi nga xamante ne ñu ngi koy dund nañuy roy lu baax daal ah. mais jamono ji ni euh, bo batay euh, ñu ngi gis ay single ay single ay single ay single <coughs> génne nga orchestre ñu ci xaar album mais lan moy projet wu fi ñaar dëggantaan ci jamono ji ni sam projet ma ci jow ak sama nit ñu baax ñoo xamante ne du yag dara mais le projet bi lan la loñ ci mëna may parce que exclusivité la li yang koy doga def ci télé waaw indi orchestre Moi, deux fois Moi, deuxième fois Moi, deuxième fois mais ci deuxième fois bobu nonou gis nañ ci mu am ay yu ay xalam. Ah, ci mu am bongo bu lay accompagner. la sax la xalam ki moo ma tëggal Sidi mbay mi moo tax fu jëm fumay teug tëgg jàkkaarloo ci xewi mom mm. bu ñew da ngay gis sax su ñëw damay dem ba ci bi ni lan soxna si di ngeen ma mën may touti temps mom mi mo teug sama soyeb ak kon yow sa événement jàkkaarloo nga ko tuddee jàkkaarloo man jàkkaarloo rek lay def ndax nit ñi parents ay tamit duma duma neub ma nëbb am na ñoo xam dañ may bëgg pour ma tëggal leen jàkkaarloo mais dañu am moyen bo xamante si ni mm. dinañ ma ko fayé mm. pour ma ñew déplacer ay kandam ay ponkal tamit te man bëgguma nit di ma teugal may lek ak wala may lek ñak man damay bëgg bo ma tëggalee pare nga contane baña mer mad bi ñam nga saf sap forox toll la def mm, yëg nga ci sa bopp naata gu ndax ban nga ne waaw fekk nag fii nag laa bëgg nag ah. nga def tàmbalee jàkkaarloo ak waa Sénégal ak waa àddina ak sa orchestre ah. ñu jeexal en toute beauté parce que toi-même tu sais la woon Euh, euh, émission bi jàmm ñoo ko xaw ma affaire boobu ñu yow bàyyi yooyu yow sagem boobu yéen ah, ah, waaye waxtu bi jeex na Nokia ma waaw waxtu bi jeex na da ngay jeexal en beauté bu la neexee nga tàmbaleeg ñoom Nokia ak ñoom sagem ak lu ci topp waaye xam leen ne euh, noonu lañ ci doon ànd ak yéen ci ah? même tu sais léegi-léegi ngeen ànd ak ki nga xamante ne mooy Modou Mbacké ci seen xibaaru mbarax yi ñu dem attaquel Serigne Ndao ngi noonu baayu Ndeye Gueye waaye nag Serigne Ndao